طاهوها ويرساق يا ملكي لي توهب لي واسقني بني انا ضيقي اجل عجلا بالبشي مع مريض حتى اقيم دين كرم اسر جمعي توعى وحميني وقني ادورا وتجب سمى كرا لك السماء والاراضي والهواء بلا مشارك يرد مشكورا أجيب سلبس من حسن دي محمد تلفاهم بنا سبحان كان بشر مسلم وسلام الحمد آمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيجي سياري نيب ñëpp ci arabik nuyoo nuyoo bi di ci jiital Cheikh Mouhamadul mi nga xam ne mooy mm, xalifa uh, murid yi mm, di ci teg sëñ sëñ si dim Cheikh Ahad mi nga xam ne moom it mooy moo toogee jotaayu mm, Cheikh Abdoul Ahad xam naa xam naa xam naa di ci di ci laaf natta ngoom yëpp rek ci ci ci këri Sëñ Tuubaa yi nga xam ndax ndax buñ dee waxtaanee ci seen blaat kon moom tudd nga ñëpp tudd nga ñëpp xam naa xam naa di ci teg euh, sëñ laat Mbàkke mi nga xamante ni moo sàkku woon man moo sàkku ci man waxtaan wi ba bokk ci communauté mm, bi saytu màggal gi kon kon daal ñu ngi nuyu ñëpp kon xam naa xam naa xam naa danañ ci ci laafit sëñ Mbàkke Madina màggalam googu xam ne mook mook si blaat ñoo ñoo tiifoo ñuy ñaari wala rëy am solo yoo xamante ne Eh, kenn ku nekk tegoon nga sa nga sa morom foo xam ne sa morom sax eh, foogu foogu foogu foogu toon ne dana fa àgg waaw ci jëflante gu rafet gaag bokk gaag lépp rek kon de kon Cheikh Blaat nag moom koo xamante ne war na see bind ay téere ndax eh, jëfam jëf ju rëy ju yaatu ja fit waag ak ak gëm ne sëñ bàmbaay léppam bokk na ci sëñ Abdou Lahad li ma ci li ma gën a euh, jàpp ci moom mooy xam ne sëñ bàmbaay maanaam mooy ku tayuk sëñ bàmba ci kaw suuf mu daal di di yenu yan yeneen wu rafet rafet ñeme lool euh, ma la suñu musaaka naan dingañ dingañ di wéy te tëwatul balaaya waaye waaye waaye waaye ko ko kookaay Sëñ Blaat nun ñi nga xam ne génération bi nga xam ne Sëñ Blaat lañ lañ dund nun Sëñ Blaat mooy mooy mooy suñu dund nga xam ne dëgg dëgg dëgg nooñ Cheikh Saliou ñëpp ñoo nañ fi ginnaaw bi sax waaye nag Sëñ Blaat nun lañ dund ak euh, ak xilaafam daa bokk ci suñu dund moom moom lañ gën a xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci misaal rek touba ni melon ci bu jikon magal magal nga ne bo noonu ndaw dañ da dem di magal yi di wër ci ci guddi géeg yëpp nga ne teug mak lepp da àndandoo saxaaru cigarette saag ñooy nan ndox mak ñooy carte fek ñooy nangam ñooy ñooy taaxuraan ak ñooy waaraate ak ñëpp daa jaxasoo ci bëcc bi bëcc bi kenn kenn xamutoon nu mel loola loola ko xam ne fekke woon nga ko dund ko ak ak ak bi laa jógee rek daal di daal di raxas Tuubaa ba mu set loolu loolu moom kimtaan la moom marché marché occas ba ba koy toj loolu loolu yéeme na lool nga xamante ne mooy mooy Tuubaa mooy pàkk bi njëkk tere lu suñu borom di tere ci kaw suuf tere goo xam ne mutlaq la bisimilah di tere loolu ci Touba ma su mën a war a ala sakin yi afdalu salawaat watum taslim booba amagul loola booba nit nit ñaa ngi tox tox ca bëdd ya parce que gis sax ab photo booba jamono yooyu quatre-vingt xam naa lu ci topp rek photo boo xam ne ku toog ci buntu xaram bi yor ab séeréer sibla nag kon moo jëkk a raxasu ci tuubaa ci ci lépp loo xamante ne yëluwut ak moom ginnaaw ba bala ko réew yëpp nag ba ci sax réew tubaab yi ñëpp ko daal ci roy ci loola kon war si na ko bind war si na ko fàttali xam ne seblaat liggéeyam ba mujj na sax for ñu julli sax for xam ne dara la ba jël ko kon Cheikh soxna Faati Dia lañ wax ne moom lañ tuddee yëf soxna Faati Dia bëggoon ñu ñu ñu waxtaan ca la ma ca xam te dégg woon ko ci ca jeexiti mag ña soxna Faati ja ak sëñ Touba seen seen yitte ja niroo na soxna Faati Dia Cheikh Abdou Lahad seen yitte ja niroo na ndax da ndax bëgg a baax dong la soxna Faati Dia maju maju suubatoon la كانت مجسوبة sama bay neena ma neena ma soxna fat ja bi ko bi ko señ bi joxe señ daru ci hasan njay ku ko tedd ke ku bag koke señ daru ci hasan li ci gëna gaaw moy kat suñ tuwaa di dugg xalwatu ci dal khudus mom la jëkk jital bu dugg xalwa ba noppi génn sëñ bi su ko dugg kon kon doyna kon ci xamle ko bi ko bi ko ko sëñ bi joxee fekkoon na am na keneen kuñ ko joxoon maam Thierno mu ñàkk mu ñàkk ko juboo ñu jox ko sëñ Darou Assane sama baay nee na bi bi ñu ko joxee sëñ sëñ Darou Assane ci guddi gi sëñ Darou Assane dafa ñëw euh, permis daal daal di koy ubbi permis nii ne ko euh, ne ko Eh, fasal yéene ne suba koor nga xam ne loolu ne <clears throat> loolu lu la bisub ngan gi eh, maanaam war koo yeddoo koor ne ko fasal yéene koor ñu sante ko yàlla waaw loolu lu am solo la lu am solo la nga ne ne doomi sëñ Bamba ak sëñ Darou Assane Ndiaye kon ñoom seen bisu ngan moom daa war a doon bisub koor kon kon kon foofu ay bind yu baree nga ci nga xam ne jombul euh, mbokki mbakk yi nga xam ne tey buñ dee def aw xew dañuy sereng te te sereng xam na xames na la ko waral mooy fàttaliku rek ñàkk gu amoon ca booba sëñ daara boo xam ne bu mu saadi su ma saadi amu xew du yor dara lu may la la la dongo yee yelwaan ceeb ak dugub ak lépp la ñuy boole ci saako ba sotti ko ci cin la mu muy leen na muy sarañ bi bi xewal gi dikkee nag ñu ñu ne dañuy fàttaliku loola ndóol ga amoon démb waaye nag loolu kon buñ ko dee fàttaliku dañ ko war a fàttaliku ci sant yàlla mooy bañ koo def pukkariwu bu dee bu dee da ngay pukkariwu nag inna laaha laa yuhibbu kulla muxtaalin faxuur loolu loolu su borom bëggul kuy pukkariwu kon kon daa mel ni kon soxna Fatou Dia nganam nga bu bu doon moom la ñuy waa Mbàkke moom lañuy ñuy ganalee ba tey jii kon dana am solo lool ko am ak ngan bu bis ba da koy wor waaw loolu kon loo loo loo am solo la sama bàyyi bi bi ganalee soxna Faati Ja ba noppi soxna Faati ñëw ñëw ci sëñ bi siyaare sëñ bi ne ko Faati Ja na nga na def ak fere ya dong yi na nga def ak ñoom mu ne ko ah indi nañ ay xar indi nañu béy nañ lépp de. su señ bi ne ko fati ja kon de war nga gor ba ba su ëllëgee nga mën a leen dara dégg señ sëñ Bàmba ni muy alawati ko wax ji nga xamantene ne la may fo yek sax nak yow kon de fati ja war gor gorlu ba su ëllëgee nga mën a leen dara wax ju rëy rëy jo joo ñepp ci duggu ñepp ci duggu mom képp ko xamantene nit ñaa ngi sukk fi yow di la jox seenu ñaq war ngaa xam ne bi bisa nga ñëw ca ca kanam bi bis boo xam ne bu agsee ñooñe ñooñee danañ la soxlaal dara ndax ndax yaakaar a taxoon ñuy sukk fi yow aka di la jox seenu ñaq sama bàyyi ne ne sama bàyyi moom mooy sa suñu moor jóor njëkk jóob moom moom suñu amalu nuru jóob sama baay nee na soxna Fat Jee daal daal di doon mëccu mëccu ba nag foro nee na sax mujj na sax du du tëdd ci ab lal foro waaw tëdd ci ab lal ndax xam ndax ndax wax jaa di diis ca moom nga xamante ne nga xamante ne dund su su fenk yu jëkk yi rek daal di dund sama bàyyi de di wax ne soxna soxna Ndafar Ja booba mu mujj na sax sëñ bi sëñ bi euh, jigéen ñi comme ci bëgg a tàggat dalay boole ak soxna Fatija misaal nee na nee na soxna soxna Mariam moom Cheikh Moustapha taawab Cheikh Moustapha mm, daa mas a dem ca jaba marché ba gis gis fa ab kopp bu rafet kopp kopp bu bu rafet mu di koy jënd indi ko sëñ bi sëñ bi ne ko Mariam mu lu jublu mu ne ko dama ko romb ca jabar rek de mu dem ci yow mu ne ko demal indil ma ndétti la ba waaye ci marché ba jënd jënd indi sëñ bi ne ko demal ca mu jàngal ak taalibe xam ne foofu rek li li ma ci soxla rek mooy sëñ bi daana booleek soxna na faari ja ku mu bëgg tàggat te te kii mu bëgg tàggat mooy tawab Cheikh Moussa Ba lool loolu kon lu am solo la sama bàyyi ne soxna faari ja daa mas a dem ca jaba romb fa sa saatu am na am na saatu soo xam ne saatu naari gànnaar la woon su rafet la woon ni eh, yaax bi di dénk bu rafet la woon nga ne moom moom lañ daa sotti xarit mu booba soxna Baye soxna ba njëriñ la romb eh, foofu xanaa saatu sama rafet mu mujj mu jënd ko indi indi ko sëñ bi sëñ bi ne ko Fatou Dia loo ci jublu sëñ bi nag bu ko tëgg son jamono ji nga xam ne bu la nit joxoon ni million doo jéem a ba xam sax million yi fan fan la ko. ci leeg fu mu ah, maanaam doo jéem a gëstu ba xam lu mu ci jublu ndax fapam ko jël sax moom su yónni ko jël waaye lu mu ci jublu lu mu ci jublu sëñ bi sëñ bi laaj ne ko ne ko faati jël loo jublu mu ne mu ne ko man damaa romb dama ko romb ci jaba rek mu rafet sama xel dem ci ci yow nee na sëñ bi benkar ñi ko benkar ñi saatu si daal di daal di def nii ci loxom loxom bu tëdd ba ne ko ne ko Faty xanaa ñaw na de soxna Faty Diagne ne ko waaw ñëw na kay waaye nii seen diggante tipp ne ne kon ma dog sa diggante seytaane ma ne ah soxna Faty Diagne kàngam joojee kon eh, aaje woo ñuy dog diggante mag seytaane hmm, kon de kon xanaa kon keneen kon foofu tomb la bu am solo soxna Faty Diagne moomu si tubaab di tàggatloo eh, soxna yi téewut ndekete moom it des na ab diggante moom ak sitaani maanaam maanaam des na daal moom it as diggante soo xam ne war war wares na ko euh, ñoŋal loolu lu am solo la lu rëy rëy la xam ne kon yaakaar ne mbir yéwén na ah soxna Faati Jade kon kon moom bokkatoon ca kooka ñooña ah, kon it lu am solo ngoog soxna Faatija bokk na ci genn xar baaxam gu ma yéem taa daa dem ci ab dëkk gane jëfa bamba fanaan ni booba set mu laaj mu daal di dee laaj ne ne waaw ana kii bi ana rëbbkat bi ñu ne ko mi ngi nii mu ne ko biig de rab yi dëkk bi yépp rab ci rab ci àll bi bépp di dikk nañ fi fi man di jooytu nee ñu kat yow yaa tax ba mënuñoo naan ci dég bi oh loolu xaramu la waaw gaa ñu ñu kaa euh, sama fa fa fa jene rëbbkat bi euh, ci rab bi dëkk dëkk bi de nee nañ ma yaa tee ñu mën a na naan ci dég bi ndax ndax da da nga leen di tugloo xam nga loolu ko loolu kon ملي وان كون ديماسيون سوخنا فات جي سي نيكات كون موم ولي وليت لله تعالى كامله داخ داخ امنا كشف كشف بو خامني مانا واخك جناوي مانا واخك اك عربي لولي كو لولي تي كون سما خال داي دم جلا سما امين ديوب توب سيغ مور جور ني سوخنا ميمونه مو ماغ ما mi nga xam ne moom wax nañ ne moom moom moom lañ suñu tudde mii nee na sa sa maam ami aminte nee na euh, dañ doon dañ doon defar ay cere biñ ko defaree nag nag nee na ba kii nag euh, weer ko noonu nag nee na mu xiin ñu naa soxna si ka daa mel na xiin na Eh, asamaan si fa xiin mu ne ko nañ were cere yi ñu tàmbalee were mu ne ah bàyyi leen ko ma ba bàyyi koog njaag sëñ tubaa njaag na nee na di daal di set wicc day nga loolu lu kiim tane nga nga xamante ne ne ne soxna Maymuna na moomu alkubra wala nu koy waxee maanaam euh, liggéeyam boobee mu daa liggéey ba ca soxna muslimatu moomee noo ne liggéey ba mu daa liggéey waaye teewutoon ñu xam dara ñu xam dara loolu loolu lu am solo la sëñ Modou sama rakk day wax lu am solo loo xam ne nettali boobu daal di moon ci soxna May mu mu mujj mi waaw dama wax Kubra ak ñoom ñëpp Kubra la ñu rek waaye mu mujj mi rakk mi ma doon wax damaa dem di ko ñaanloo ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma ma jub ba mu defee loola nee na mu toog si soxna soxna si xel li foofu foofu lu am solo la soxna si xel li xaw ma kafe la xel ab kaas ni ko ko jëyi su suñ Moodu nee na ma dem bay jël daal di sëgg soxna si teg fi suuf mu ne ko waaw la nga doon wax la nga doon wax la soxna doon seetlu ba xam la nga doon wax la la doon foo ci toll waaw lu am solo bi doolu jombut noonu bu nu bu nu as soxna doon jox ab kaas te soxna sa sharia mayewut ñuy jonjoo boo yeexee danañ da da da danañ njëkkatee moom moom moom kaas ba looy lu am solo la waaw nuuru boobu noonu mu doxee bi ko si dee jéeyi kaas bi mu ne jéeyi loxoom daal téyewaat waaw kon léegi na kon léegi def na ndigal li si soxna si nee na jéeyi mu ne jéeyi moom it waaye nag sëgg soxna si teg fu soo waaw loolu loolu loolu lu am solo la. nga xamante ne l'islam charia daa am lu mu ñu maye sunu sunu diggante noonu waaw su su su sunu diggante ji ak ak ak dund soxna soxna Faty Dia kon moom it boo ko ci ci ci ci waxee noonu ma noonu ma indi woon soxna may ci noonee waaye soxna may it ñu indiwaat ko ko ko ginnaaw ginnaaw moo doon seen lépp rek. so soxna May mu mag mi wala Kubra mi sama bàyyi ne nee na suñu Modou Abi ma ma maam Thierno moom bam ñëwee nee na mu demoon ca mu demoon ca nee na nee na nee na àndoon ak Cheikh Lo Ballago suñ Cheikh Lo Ballago nee na ba bañ ci jógee ne ba jógee ci ci ci yi nee na ma ne naa de jaar ca soxna May seere ko. nee na ba ma ñëwee mu ne ma a ah, Cheikh ah, ku àndal ma ko Cheikh de la àndal mu ne ma ah ndax ndax ndax ndax dana ma mën a jàngal ma ne ko waaw ah, waaw ma daal di jug dem eh, wooye ko soxna may de nee na bëgg a jàng mu waaw mu koy su su su ko bëggee daal di ñëw soxna may ne ko taxawal ma ma wax la ci xasida yi loo xam ne ku baax waxoon na ko ci xasida yi ne ko kere ba ma ko bind ba ma bindee kaamil ba indil ko sëñ bi ne ko xàcc ne ko lii de yéene woon naa ko jigéen doom ju jigéen ju man alxuraan doom ju jigéen ju ju man alxuraan mën a yéwénal dugub yéene woon naa ko daal ne ko daal ne ko waaye may mun a day yéen alxuraan dafa diis ci yéen man samoo sàlla sàll mooy façon naaru góor bu ñu tàggat ba mu suur lool jàmbaara koy ma mën a yor daal ne ko daal ne daal ne ko may mun a xam nga alxuraan noo ma demee génna mu ne ko ah, ne ko alxuraan daa mel ne nga jël ab reen reen ab reen sama sama bàyyi nee na mooy bu bu ñu sembee dugub ci ba doon ay ay pàcc pàcc yu ndaw yooyu moom moom la ñuy sóob ci dënn gi loola mooy reen reen reen wolof wolof ni ñu koy prononcé daa xoromu du ab reen de ab reen la reen nee na nee na mu ne ko mu ne ko ko daa mel ne euh, ab liir bu bu xiif ka jox ko reen ndax dana ko mën a jëriñoo soxna May ni ko ah déedéet mu ne ko laaj ko laa laaj ko laajal liir bi ne ko nu mu koy jëriñoo mu ne ko nu ko da da koy jox jàng bu sawar déttu naa jeeg bu bu sawar bu set mu soq tunaa tunaa mu bojj jëri soq foofu wal def cere mbaalaax lekk ca ba ween ya joox ween yu joox may mun a nuy mel soxna na may ne ko xanaa day sànnim soow ni ko xëcc day àggoog nampa ci des kon kon kon yaa ngi gis ne kon daa mel ne ci xisa bi daa mel ne kon soxna yi kon ñoom xasida gënoon a dëppook ñoom loolu ndiru xasida yi bu dee nag góor ñi nag nag daa mel ne kon alxuraan jaa dëppook ñoom sama bàyyi dal ci eh, commenté leeral ci dara mu daal di ne waaw ndax xale bi liir bi man nga koo yor muy tulee la ko def lu ne ba noppi te du ko te nàmp du ko yàqal nàmp wa kon léegi xasida moom léegi euh, doo aajowoo kat nga naan da ngay jàpp ak da nangam moom moom laab gu mag gi rek bu dee am nga ko moom léegi yow mën ngaa jàng jàng xasida kon kon kon day mel ne ne kon li ma bëggoon a tënk rek mooy soxna Faati Ja alxaarifatu billah soxna Faati Ja murid saadiqa ba saadiqa muridatun saadiqatun nga xam ne moom ku dëggaloon la ci calam ne nga xamante ne euh, sama benn yaay rahmatullahi alayha maam naa day naa silla nee na dëkkoon njaareem soxna Faty Dia ma mm, goon njaareem nee na ma soxna Faty Dia daa amoon ab tookër tool kër tookër boo xamante ne fu fu fu fuddën la ci daan def euh, fuddën nee na nee euh, jigéen ñi nga xam ne ci rocciku dem ci tukkar ba dagg ci fuddën sa soo demee soo fuddënoo du jàpp lu dër nee soo ko tàggoo lu mu la ca lu mu la ca jox lu mu tóoti tóoti soo soo ko fuddënoo mu dër lu am solo lu am solo nga xamante ne mi ngi jàngal soxna yeekat ne leen bu leen jël lu leen moomul mi leen jàngal nekkat kon soo jëlee lu ñu la jox loola mën naa barkeel bala nga bëggoon ca la nga doon tibb nga am ko ca ba noppi teroo am bàkkaar am solo am solo am solo san san san bàyyi gi wax na mook sin Basiru daa soppoon sin Basiru lool soxna soxna Ndafati Dia da ko soppoon lool lool su suñu Basiru nag taar ba taar ba nee na su su soxna Faal ji dañuy tëll ci kër gi seen sëñ bu Basiru ak manto ya nee na mu ne acam acam cam daal di sëgg daal di dëpp nga xam ne mënu koo xool ndax taar ba waaw waaw nga xam ne daal da koo soppoon sopp ba nga xam ne ne mënu koo xool loolu yi nag soo waxee sëñ Basiru na noonu na nga yow ci waxee ñëpp rek waaw mu Moustapha ba ci sëñ Fallu boobu booba xam ne jamono jooja jamonoy Cheikh moom ma dal Fadal ci ci la làqu soxna Faati Ja ak sëñ Fallu ci tuuti si rek doone ko suñu si am di kan waxee ne ànd moom ba ba ca sëñ Fallu di ko gunge ba ci gigiseem googu mu ne mu ne ko waaw e, e, soxna suñu wàllu ne soxna ci yeen ñi ñu mujjoon ci ci ko baxal lu mu waxoon ci jang da jàngal alxuraan ko fi bayiko koo lu am soxla salafi si da nga dégg ñu ngaan kenn jàngal alxuraan ko fi bayiko koo nee mu ne ko sëñ bi nee na arafu woo ko arafu wo arafu woo ko bu daldi ag ci borom kon kon bo ne alif lam mim bo ne alif yool ba daal di àgg ca kan yéene loolu loolu loolu lu am solo la nga xamante ne euh, soxna Fari Dia man ngaa dem ba laaf ko ca euh, su sëñ Cheikh Gaïndé Fatma man da ko fonkoon su sëñ am di kan nee na da daa woo bu dikkee nee na ma soxna Fari Dia da koy tegal ab tabouret ab bang xam nga sëñ Cheikh daa sànk dafa sànk ah wala nga def tabrier moom sëñ sëñ Cheikh la kooku kooku fonkoon la waaw nga xam ne nga xam ne ku am solo ka ku sell ka ka ka dundoon la sëñ Bamba doon woote sëñ sëñ Tuubaa lam doon woote ka ko dundoon koo kooka mooy soxna Fadi Dia yaakaar naa jigéen ñi kon. sëti sëñ Blaat yeeg yooyu ñooñu kon yaakaar naa bu buñ buñ diggaatee waxtaan wi danañ xam ne ah kon kon de ñoom la leen ci war mooy kon topp topp seen topp seen yoonu maam jooju topp ko ndax kat buñ bëggee bu ëllëgee noo ne sëñ Tuubaa wax ne ko Fatidia kon de war ngaa góorgóorlu ba su ëllëgee nga mën a leen dara bisa ngi ñëw eh, eh, inna yawmal fasli kaana miqaata bis penc gi ñëw moom nu ñëpp ay dajawaat xàmmeewaat kenn kenn ne xàmmee sa sa morom kenn ku nekk ku la doon yaakaar ka nga tiimoon jullee ko te mu xam ni mënuloo ko dara bis nag da ngeen téyante eh, téere baat ah yow kat ndekete ba ba ba ma lay ñaqal mënuloo ma woon dara la la nga doon wax lépp it dara amu ci woon. kon kon def ni soxna Nafat Dia dana dana ci bax lol ndax yalla ndax yalla su bis ba ñu ñu ñu ñu mën a siggil mi nga xamne mo leen meññi waaw na ndax kat Cheikh Abdou lahar mom ku ñu tuddu di ko tuddu jambar do ngor do jambar jambar kep ngor do mom jambar ci jambar jën deug deug moy jambar ci diine ji lu am solo présidente tribunalu Njaaréem bi maanaam jigéen la woon jamono Abdou Diouf si waay def ci lu am solo wax Abdou Diouf ne ko kat ah man kat chef de tribunal bi mënut a nekk jigéen ndax faaw ma wéete ak moom te man du ma wéete jigéen ju ma tëkkut Abdou Diouf daal koy déplacé lu am solo la lu am solo. en tant que xalifa général de des mourides faaw muy war a wéete kooka ñuy wax ay secret yu kawe léegi nag kooka nag wut mën a doon jigéen oh gis nga mat ga mat ga mat ga faw ah, ah, faaw mu wéeteeg moom te man du ma wéeteeg jigéen ju ma takkul Abdou Diouf itam xam ki muy waxal kum doon loolu loolu loolu it bind la boo xam ne bu am solo ci ci ci kilifa yi kenn kenn ku nekk ba ko xel ba ba bu président woon ci yow ndaw loo xam ne jigéen la ni laa président kat nee na dañoo war a wéet bu sa xel demee ca seblaat sa bàyyi bala sa ràngam ba nga ne ko ah, man nag de koo xamante ne nag jigéen jigéen ju ju ma tëkkun nag ite ju lum kawe kawe suñu maa wéet ak moom am solo am solo ab bindee ko soxna may mu mujj mi daa dem ca Senghor Senghor fekk Senghor Senghor ubbeegut mu toog mu toog di xaar daal di nekk ci dogom bi alxuraan bi Senghor ñëw fekk ko mu toog mu bëgg a wax moom soxna si nekk ci téere bi waaw ginnaaw moom dikk na dikk na ca waxtu wa Senghor moom ubbiwut ba mu ba mu ubbi dogom alxuraanam bi dootu dootu dootu wax moom loolu am solo la lu am solo la lu am solo nga xamante ne kat ki may waxal nag fi ñu toll moo ma gën a yitteel may wax kumbit waaw so soxna na may mu ne moomu jibe waaw loolu loolu it eh, ginnaaw soxna fa fajal la ñuy waxee ñu ñu ñu fàttali col ga colog colog mag ña man fi fekke woon naa njëriñam eh, njëriñam waaw ba sax ya fekke woon naa yéen seen mël fa ya sono so so sëri seeblaat yi yu jigéen yëpp nag bu ñu mënoon a fexe ba sëñ mo soxna may mu mi nga xam ne ñoom xam nañ ko ci ci gis nañ ko mën naa am photo gis nañ ko ñu mën a soloo noonu waaw loolu maa ngi koy ñaan ndax bu sërub seeblaat bi doomi seeblaat bu jigéen bu soloo colug lislaam suñ Bamba nee na walante naa li diina xataa tasturi jisma ki yasunu bi tax xamul kenn yow yow day doo am diine yow soxna su soxna su jullit si mu muru woo ñoom bu ñu muru woon rek suñu kër yëpp muru waaw loolu kon moom lu am solo la waaw ñu ngi koy ñaan ginnaaw dañuy waxtaan ci soxna Pati Dia kon kon nag ñu jéem koo rek kémtulaay kattan soxna may moo ne mi fi mujj rek moom doy na sëkk boo ko xoolee na mel nga man ko kon de kon ma ma cay laaf rek sëñ Mbàkke Madina moomu nga xam ne moom it màggalam gaa ngi ñëw nee nga ma la 14 la màggal gi moom it muy ko am solo ku ku ku ku ku si eblaat fonkoon fonk gu sax gu yaatu sama baay sëñ Mor Dior euh, ñu mu war a dox diggante ba waaw moom mu war a dox diggante ba ak sëñ Mbàkke Madina nga xam ne moom maa ngi fàttaliku rek euh, quatre-vingt quatre-vingt-un wala deux euh, yaakaar naa moo mën naa am mooy. ngan gi seigne abdoulaye mu jéggal na ci madina madina fekk na ko kéra kéra bi takusan bi mi yow nek nak di wajjan nak delu sama baye dem ci fekk ko ci neegum ñax ba nek ma mag moom ñoo muy wax de santa sant sant sant ma sëriñ nangam nangam sant sant sant sant yu bax nga xamanteni ne te te ne sëñ bakk ba dina ci ci wat dako fonkon mom fonk fonk nga agona ca agona ca andi doomi sëñ Bàmba yi seeblaat da ko ko daa jox seeblaat jaxate laaj na ko ko loo jublu ci loolu seeblaat jaxate moom jaxate la ko mbokkam moom mbokkam la ne ko loo jublu ci sëñ Mbàkke Madina nga di ko jox addi doomi sëñ Bàmba mu ne ko mu ne ko damaa gis fa sëñ ba nun ñëpp laa fa gis gis gis sëriñ ci sun biir ma laaj sa sëñ bi ne ko sëriñ mii nag mu ne ma ci yéen la bokk loolu xam nag loolu tax na ba Sëñ Abdou fonk na fonk fonkeel goo xamante ne kimtaan la kimtaan la maa ngi fàttaliku 1978 bi ci làqoo tabaski ga Sëñ Abdou daa daa daa daa daa yëgle ne képp ku yaakaar Cheikh sa na nanga dem jullee ji njëriñam booba booba man ma maa fa waaw fonk googu fonkeel gu rëy rëy daal la ko fonkoon nga xam ne ne ne sama bàyyi nag moom moo daa dox dox booba seen diggante nag. dëgg dëgg booba waaw waaw waaw nga xamante ne te ne moom xamoon na ci lu bari tey tey daa na ma ca wax waaw ko ko daal ñu kon soo waxee nag si laat daal di wax si sëñ Saliou wax si sëñ Chouaïb wax si Abdou Samad seen seen ñooñu si seen magalee daanaka daanaka boo boo xoolee ñoo tegaloo ci waa kër sëñ Bamba yëpp rek ko daal ñu ngi sant kon. Eh, waxtaan wi nag dama koy waxtaanee nag ni ma ko waxee diggee woon ca ca jeexiti mag ña waaw man nag noonu lay waxtaanee li ma ci xam xam kon bëriwul kon bëriwul man naam wala li ma ci mën a wax mi lu lu lu dëppoo jotaay bi kon kon ñu ngi santaat ñëpp di di siyaare wat sëñ si di di di siyaare Cheikh Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla leen yàlla yàggal te aar leen te teggal fi képp kuy jéem lu baax ci kaw suuf. képp kuy jiw lu baax ci ci kaw suuf yàlla na leen dëgëral aar la kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu